salaamaaleykum comment allez-vous. man du ma wax. pour quoi ah yi nga bay fii leen ma gis ne ko bàyyi. non loolu après la damay ragal bu ngeen ñëwee léegi nii nar ko lekk après du ngeen mën a ah. suur. Attendez. Alors, notre invité, euh, Mam Diouga Dien, euh, Dien Sala, comme, qui nous vient de la région de Thiès, artiste musicien de variété acoustique. Donc, c'est un fi nga xamantene mooy plateau de STV. En tout cas, nous voulons lay et puis de le souhaiter euh, la bienvenue. Merci. Samba Ardo. Oui, Fili, comme nous ko tu l'as si bien présenté, xana rek mané ko acca ñu dem. Waaw, ma def ben morceau ko moom ngay tàmbale. moom ngay lay ah. nuyoo quoi. Ah, mu nuyoo xaadim sëñ bu mag bi ah. acca ñu dem. maam xaadim xetalikat bee waaw xalaas ni day fi ndee ni géej xaadim xaatim day téere ma ni wer na sang samba yekk ñooñam waaw ñoom de tekki ñu leer ni naa la xare nag ci nafs juróom-ñaari at juróom-ñaari weer ak ñaari bés ci bàttin bi daan tubaab yi xiwal yaa ngi bawal waaw waaw ni leer ku xayma téere ya yéemu te ku natt xam-xam ba ni maam xaadima sàkk yoon ne muriidu laay wàcc ñok njaboot ku jébalu xewlu xidmatul xadim yeye balay sa buri bayu basak baara bayu sëñ saaliw mi jëfe ndigal sangu-sang yi moom yoonu leer wi xareek nafsu wéy ci yoonu siratal mustaqim ci liggéeyi la ñu woñun xéwal yi dal di bawan ci lu leer a leer ku xëy xel kom yéemu boo ca barke loo yow ni maam xarima sàkk yoon ne muriidu laahi wàcc ñook njaboot ku jébal xewlu xidmatul xadim yéyé xaadim ni maam xaadim mu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Tu ah Maam xaadim yow <laughs> mi ñu baaxe Cheikh Salihu borom jurul ni njàpp ndal ni borom xel kom maam xaarim yow mi ñu baaxe Cheikh Saliou borom njurul njàpp ndal ni borom xel kom jërëjëfe sëñ Saliou ci fi nga yóbbu yow jumaa ji tey mani làmp baabul muriddiin gën a feleer maam Cheikh Ibrahima Fall làmp seede na ko sëriñ Saliou mani gayndeem nga Cheikh Ndigal Fall moom de leeral ko leeral leer yi jërëjëfe sëñ Bamba jërëjëf sëñ Bamba jërëjëf sëñ Bamba waaw waaw waaw jërëjëf sëñ Bamba jërëjëf sëñ Bamba jërëjëf sëñ Bamba jërëjëf sëñ Bamba waaw waaw waaw jërëjëf sëñ Bamba sëñ suway bu Mbàkke mu soxna Faama Njawar sëriñ Mama Samba Mbàkke maam jë sëñ suway bu Mbàkke mu soxna Faama Njawar sëriñ Modou Fati Xari Mbàkke maam jë sëñ suway bu Mbàkke mu soxna Faama Njawar Gey sëriñ Cheikh Mbàkke waaw mooy baay ba xaritu sëñ Mahmoudan Mbàkke mu sëriñ Mbàkke soxna lu sëriñ suway bu Abu Madiana jërëjëfe sëñ Bamba jërëjëfe sëñ Bamba jërëjëf sëñ Bamba waaw waaw waaw jërëjëf sëñ Bamba jërëjëf sëñ Bamba jërëjëf sëñ Bamba jërëjëf sëñ Bamba waaw waaw waaw jërëjëf sëñ Bamba Ndiobo <laughs> jërëjëf sëñ Bamba <laughs> voilà yéen nga nekk euh, dans la région de Thiès évolué un peu dans le dans le domaine disons acoustique ak euh, ci wàllu musique variété mm. pourquoi bu nga def boobu des choix ci ci ci ci wàllu style ci wàllu. boobu style de musique lu tax nga taamu variété bi ak acoustique bi rek pour yëngu ci. bon xam nga li naan ku nekk peut être li ngay sentir rek moom mm. ngay def quoi. Mm. peut être la demee quoi. moom nga moom laa yëg quoi waaw. Mm. wax dëgg yàlla sa fait des années maa ngi ci. peut être am na ñoo xam ni woo nañ ma sax bëgguma dévier ci yeneen fànn musique mais. xam nga nit ki li mu bëgg rek ko mm-hmm. mm-hmm. variété acoustique. Mm-hmm. peut-être variété bi sax bu ma koy def c'est juste pour mën a toog ba léegi ko parce que peut-être bu doon teg variété bi ba léegi doo ma gis xëy na sax quoi. parce que acoustique bi rek noonu dafa metti au Sénégal quoi. oui waaw pour nga am ci ni yoon boo ci génnee. Mhm. c' est peu dur. Mhm. mais variété bi moom ma dimbali. ba léegi ma toog di waaw di ci ñafe maa ngi dans les hôtels un peu partout. Mhm. même à Thiès. maa ngi joué foofu ci dans de grands hôtels foofu. ak quelques restos. d' mais est ce que c' est peu facile pour yow nga nekk euh, disons ci région bi Thiès foofu noonu dafa évoluer bañ a ñëw un peu dans la capitale pour euh, def sa promotion est ce que nekk foofu noonu. bon waaw xaw na metti tuuti ci ñun ñëpp ah. artistes fa nekk yëpp Thiès mais bon de temps en temps des fois nga am contact fii par exemple ku bu foofu. wala mu mm. fekk la ci benn milieu nga joué. mu wax la ndax intéressé wu la pour nga ñëw Dakar affaire yi ko mais peut-être fois du am suivi it quoi comme ni ñu koy waxee. Mm-hmm. Mm-hmm. waaw alors est ba yëngu maanaam ba nga yegg si fii nii euh, am nga benn album wala benn single wala yaa ngi ci waajtaay ngir génne benn produit pour euh, gën a def sa promotion bopp Sénégal yoo xam la. waaw maa ngi ñafeel peut-être sama bopp amaguma nag producteur peut-être mais su ma amee producteur yi xam naa dina ma gën a arrangé sinon dans beneen cas bi man maay ñafeel sama bopp ak samay propre moyen ba fexe génne sama produit waaw yaa ngi liggéey ci benn projet maanaam pour ah yaa ngi liggéey ci benn projet pour taxawal benn projet waaw pour mhm. su ma ay son pour génneel ko sama bopp incha mhm. allah maa ngi ci ko alors da wax sànq ne da ngay joué ci pas mal d'hôtels et tout dañ bëggoon xam est-ce que d'habitude di am euh, ku la accompagner wala yow yaay yóbbu sa guitare uniquement def sa musique wéy. ci des fois ma dem man rek parce que des fois dañuy soxla benn nit en acoustique quoi man rek ma dem ak suma guitare joué leen ko des fois ma yóbbu groupe comme période de fête fête 31 24 ak yooyu ko mhm. joué leen ak orchestre. Hmm. d'accord foofu da ngay répété def ay keek yooyu. waaw dañuy répété waaw kii pare ko mhm. joué. d'accord actuellement ça de de reprendre ay musique ou maanaam chanteurs yi nekk yi au niveau waaw dans le monde. Mhm. zouk reggae funk R&B. Mhm. pratiquement genre musical yi laay joué quoi. ay ngeros ak tout. Mhm. zouk kabolov <laughs> fépp laay làmb quoi. ngay sentir quoi loolu nga taamu. waaw style boobu quoi. Mm-hmm. même mbalax sax dama koy joué it. ah waaw maay faral di joué quelques morceaux mbalax. naa reprendre ay quelques Youssou Ndour wala Frère Guissé. Jogal mm-hmm. Sakho mm-hmm. Ismaël Lo. ma leen di reprendre it quoi. ok d' accord alors su ma la waxoon nga reprendre ma benn morceau benn musicien boo xamante ne disons il est euh, un peu international est ce que di nga ko mën a reprendre. waaw de la variété.